et intégral. 2017. Mhm. est-ce que la nga ni bi nga 2015 bi ngeen créé euh, mhm. parti bi di mhm. rassemblement pour la vérité. amoon nga xalaatoon nga njortoon nga ni. Euh, combat bi nga bëgg a mëne. dina ci yoon bu doy bi après moo nekk ce cheminement. waaw euh, on l'avait vraiment appréhendé xalaatoon nañ ko nag ñu xalaatoon ni. histoire humanité. depuis un ci Yàlla aadama ba tey jii ñëpp ñu mës a jug te dañuy xeex pour xex pour deug xexal mbax euh, xexal diine euh, ils ont été persécutés. Mhm. ils ont été agressés la plupart ils ont été tués. Mhm. donc ñun xamone ni nous ferons pas exception euh, yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam ba mu toogee Màkka commencé woti diin islam dafa am ben mak bu ñëw toog déglu ko. mu wax wax li mu bëgg a def di abolir ni ñuy rey xale yu jigéen ñi le faible waruñu ko toroxal ndax le fort waruñu ray bakkan bi xamé lu ci bakkan euh, di wax lépp yi xam ne la ko yàlla yónni mag mi déglu ko mu wax paré mu ne ko yow gaay yi duñ jubóog yow de mm-hmm. ndax da ngaa bëgg mbir yi jub te ñoom dañoo nekk di dox ci dëng donc kon vraiment combat l'islam moo mel noonu man nag dama ci préparé woon ba préparé sama famille mm-hmm. j'ai préparé ma famille mes amis mes proches pour xamal leen wax dëgg yàlla kon ko dugg nañ ci combat bu mel nii il faut déjà un ñu sécuriser suñu ay famille muy benn waaye ñaar il faut tam wax dëgg yàlla ñu préparer wu à tout xam ne lu ne mën nañoo dal. Mm-hmm. ndax ñun nous sommes des projets de de martyr en fait maanaam kuy xeexal dëgg martyr buy dox la bu ñu ko reyee alhamdulilah bu ñu ko bàyyi tam mu doxal ba ñu ko yàlla jëlee tamit ba tey alhamdulilah il a accompli sa mission donc man prévoiroon naa lii ba gëmmoon sax ni euh, mun nañu defal lu gën a doy waar mm-hmm. alhamdulilah li ñu xaataloon yëpp mujjul am ndax euh, booy xeex un système bi nga xam ne qui est machiavélique un système bi nga xam ne ñoom euh, dañuy dox ci l'arbitraire ci jaay doole ak ci toroxalaate maanaam tuumaal la sosal la sax yàq sa der ba sa notoriété ak sa ak sa respectabilité sànku ci dëkk bi. Mhm. ñoom dañ koy xeexi maanaam dañuy wax ne sëñ Fall dafa waxoon ne euh, na gaa yi moytu euh, ku ragal yàlla. Mhm. ñu bañ koo tooñ nga ne ko ndax lan mu ne parce que ku ragal yàlla dafa jub ak borom bu ñaanee borom bi da koy def. kon mhm. kooku wax dëgg yàlla kooku dañ ko war a moytu. mu ne waaye nag war ngeen a moytu nga ne ko sëñ bi ku ragalul yàlla de moom xam nañu mënul ñaan mu ne noonu nekkul waaju wàllu ñaanam waaye ku ragalul yàlla amul lu mu jombul moom lu ne mën na ko def donc nag vraiment le le pouvoir en Afrique et particulièrement au Sénégal majoritairement ñu ko tàmm incarné di ko téye ñu si gën a bëri seen diine tax ko demee noonu seen ragal yàlla tax ko demee noonu maanaam ñoom dañoo gëm ni la conquête et l'exercice du pouvoir ak la ak le maintien Mm-hmm. ñoom dañ koy def moo tax ku jëflanteeg ñoom war na bàyyi xel loolu euh, wakkil boppam nag yàlla man dama mm-hmm. gëm nag ni euh, benn protecteur laa am euh, si moom laa wiiru moom laa doyloo te moom laa yaakaar kooku mooy borom bi subhaanahu wa taala ndax alxuraan yàlla dañu def ñu jàngal ni laa xawla wala quwwata illa billah alxuraan ne wa alallaahi falyatawakkalil mu'minuun maanaam ñi gëm ni ñoom mm-hmm. dañuy def tawakkul ci borom bi subhaanahu wa taala donc ñun nag vraiment combat bi xaar nañ ci lu ne waaye jëlañ suñu bopp dénk ko borom bi xam ne lépp lu ñu dikkal li alxuraan naan qul lan yusibana illa ma kataballaahu lana huwa mawlana maanaam lépp lu ñu dikkal rek c'est parce que Dieu l'a déjà presque daf ñu war a dal et on va l'accepter avec philosophie macha kenn ci ñi nga xam ne ñu Sénégal ñëpp nangu mhm. ngëm yàllaam ragal boromam mhm. mu di imam Ndaw défendre ki nga xam ne mhm. ci ay idéem wala boog njegewaaleem mu taxu nga am premier séjour carcéral fekk ne lan la ñu mën a garde mhm. lan mooy ay anecdote ay souvenirs yi nga xam ne. Mhm. Mhm. dénkoon na la wala dund nga ko ensemble ak Imaam ndaw te Imaam Ndao xamoon. l'histoire de ñi nga xam ne ñoo doon xeex pour dëgg ak fi ñu mujjee. macha allah ah yaa nag ci ki nga xam ne wax dëgg yàlla kooku moom euh, dama ko bëgg sama biir xol. ndax euh, bokkut ak euh, ayib ma yi nga xam ne ñoo xew si jamono. kooku imaam la ci mboole mi martaba bu ñuy woowee doomu aadama imaam maanaam. ba mu waree jàng jàng na am na xam-xam bi ragal na yàlla ndax am na ñoo xam jàng nañu waaye ragaluñu yàlla hmm. moom jàng na te ragal na yàlla ci ginnaaw ragal yàlla bi jàng na te mën na joxe xam-xam am na ñoo xam ne am nañu xam-xam waaye duñ ko joxe dañ ci dañ cee laabirul hmm. waaye moom laabir na ci xam-xamam ñeenteel bi ràññee na te xàmmee li xew ci jamono am ñi xam ne jàng nañ téere yi laabir nañu waaye xamuñu dara ci lu xew ci jamono moom xam na li xew ci jamono waaye juróomeel bi euh, nit la bi xam ne dafa engagé woon jël responsabilité bi donc euh, imam moom vraiment imam la euh, imam kaamil la donc imam ndaw nag man dama yor ba léegi ay audio am ay waxtaan yi nga xam ne ba léegi dama koy bànneexoo léeg-léeg damay jékki-jékki jël whatsapp bi taal ay ojo imam yi nga xam ne dama ko stocké donc di dégloon teg moom ma dama xam ni bokk na li ma gën a marqué ci moom mooy yittem ci l'islam yittem si juliti xam lan moy l'islam manam suñu wax kilifa diine deug imam Alioune Badara ndaw moy kilifa diine ndax nit la bi nga euh l'islam euh mag l'islam nit yi xam ko jariño ko dund ko jëfé ko mom daf ko defone yittem il a formé des milliers de personnes yi nga def na ci alcorane euh ñuy dox ci dëkk bi nek ay nit yu yiw nit yu bax manam imam Daram Ken gennu fa hmm. di tal ay pneu di yak alu kenn génnu fa di saaga wala di def lu ñaaw maanaam kii euh, dafa yar un modèle de citoyen hmm. di ñu wan lan mooy le système politique selon l'islam moom daf ko jëfe euh, balaa ñun ñu taxaw di ko wax euh, ma gëm nag ni bu nekkoon fii jamono jii man xam naa ni lii ñu yëkkati nii ci wàllu islaam politique di ko jéem a doxal moom lañu si topp incha allah hmm. ndaxte loolu moo nekkoon itteem bu gën a kawe ndax gëmoon na ne Sénégal du jag fi lekk amuñu njiit bi nga xam ne dina toog ci palais ba di defar euh, décret yi di def di di di di di diriger conseil des ministres waaye waxtu julli bu jotee dina jug jiite ñëpp gars yi taxaw si ginnaaw mu jiite leen julli muy Sénégal tant que yeggul foofu wax dëgg yàlla gëmagul Sénégal mu ngi ci yoon bu baax. imam Ndaw waaye it euh, kenn koo xam ne bokk nga ak moom imam muy Abdoul Karim Gueye. xurum xàq xurum xàq. Mhm. Euh, lan mooy comment vous vous êtes retrouvé naka ngeen retrouvé wu yéen ñi. Mhm. autour de l'imam waaw xam nga Abdoul Karim Gueye moom. Euh, man damay wax ni moom mooy xalifu généralu activiste Sénégal yëpp. maanaam nit a ngi noonu nit bi nga xamante ne euh, yitteem ci Sénégal dafa jéggi dayoo. Abdou Karim ko fréquenté lu nga jege ko di nga xam ni il a un amour excessif pour ce pays. muy ben Abdou Karim calcul bi gaay nek ci tappale di jéem a positionné woog di jéem il n'est pas dans ses calculs. muy mm-hmm. ñaar ba pare ñetteel nitu conviction dafa am gëm-gëm. Mm-hmm. ragalul wét ci combat té man dama japp loolu moy critère bu ñuy xoolee góor yàlla. Mm-hmm. ragalul wét ci combat ñeme na porté combat bi xamé kenn du ci and ak mom diko saga saaga duko du def ci nek na xam ne moy dëgg Abdou Karim nak ñun ñëpp man dama japp ni moy kilifa ñëpp ñuy xex fi Sénégal. ndaxte le collectif non à l'homosexualité bi nga nous ne ñun moo andi après ñu créer collectif non à l'homosexualité à la franc-maçonnerie moo andi après ñu créer ànd sàmm jikko yi euh, moo créé lii yëpp nga xam ne combat yi nga xam ne nitu diine yëpp dañ ci bokk di ko doxal Abdou Karim Gueye boobu moo am yittewu créé collectif non à l'homosexualité donc ñun ñëpp dañoo dem après uy jikko collectif boobu moom màgg tey ba nekk ànd sàmm donc aujourd'hui dans tous les combats où nous sommes y a l'islam Abdou Karim c'est un pionnier fi au Sénégal ndax mom l'islam combat bi daf ko ñor ba xamé daf ko jaral mu bàyyi rab mm-hmm. Abdou Karim nitu hip hop la woon mm-hmm. il était dans le mouvement di nek jeune euh, am groupe euh, donc euh, di rap Abdou Karim mujjee am conviction religieuse ba mujjee bàyyi rabam xam ne moom li muy dund ci yàlla. bokkul ak àndul ak li muy def ci rab. mu mujjee ko bàyyi opté pour dund yàlla xam nga loolu déjà conviction gi du ko màgg. donc affaire yu Imam ndaw nag Abdou Karim moo si jiitu ñëpp fii Sénégal. Abdou Karim taxawaay bu mu ci amoon euh, damay wax ne suñuy wax kaaw Imam Ndao dañuy wax am ñaar ñi nga xam ne dañoo war a defal mention spéciale kenn ki mooy Abdou Karim Gueye en tant que activiste. dafa am taxawaay bu màgg bi xam moo njëkk dem sol dàllam jéem a dem seeti Imam Ndao jamono bi Imam

imam ay mandara lañu ko njëkk toppee fi Sénégal mhm. appel à l'insurrection acte et manœuvre nature à compromettre la sécurité publique atteinte la sûreté de l'État acte de terrorisme maanaam lii yëpp dañ ko tappeloon pour jàpp ko tëj ko ñetti attaque genn wàll après mujjee ko génnee ne ko defoo dara Abdou Karim nag dem fa mbir mi leer ci boppam mu commencé communiquer ci imam Ndao ne gars yi attention mhm. lii tooñ la Abdou Karim moo ci yee ñu bëri ñu le deuxième mooy maître Moussa Sarr il a été vraiment euh, un avant-gardiste ci xeexal euh, imam Ndaw damay pour pour nuyuwaale ko de passage mm-hmm. parce que maître Moussa Sarr bokk na ci rare avocat yi nga xam ne képp ku mm-hmm. Mm-hmm. en tout cas ci wàllum tappale yii nii mu xam loo xamu day jël tout son temps mu accompagner te laajul kenn ñaar dërëm wallaay un être exceptionnel di nga euh, sëñ Babacar maître Moussa Sarr yemul sax ci taxawu euh, client bi ñun déjà chaque fois suñu jàppee man dama dem ba ñoo koy tere ne ko ñun bàyyil di ñëw di ñu seet chaque semaine chaque semaine il vient en prison te rendre visite waxtaanal la xol ci loone des fois mu dem jëndal la ay livres ndax day xam ne nga am benn goût sur yenn chapitre yenn yenn domaine yi nga xam ne mhm. da dem jël xaalisam jëndal la ay livres yi nga xam ne tellement cher mhm. ñëw andi la ko cadeau pour nga lire nga xam ne kon kooku yitteem moom c'est sa manière de participer dans le combat citoyen mhm. waaye yemul foofu man dama gis ay xale yi nga xam ne ci biir kaso bi Maître Moussa Sarr dafa gis ni ñii dañoo am problème location mun naa tudd ñu bëri. Mhm. maître Moussa Sarr yëkkati àllam fayal leen seen ay location pendant qu'ils sont en prison. Mhm. lii c'est pas donné à tout le monde ci ki nga xam ne fayeekuwul musul laaj dërëm ñi xam ñoom lay xeexal donc vraiment euh, mhm. c'est un vraiment mérité. Euh, yàlla saxal ko te dëgëral ko. yàlla bëril ñu mel ni moom yàlla yokk ko ay teranga ci zaahir ak ci baatin donc pour dire que euh, imam Alioune Badara Ndao wax dëgg yàlla c'est icône la bi nga xam ne dafa am leen li xam ne dama ko ci moom man moom dafa bokkoon si ñu gëm ne. nekkul kaso doon ragal. nen dafa doon xaar bés mu taxaw ci mbaram di xutbar di xutba nit ñëw fekk faak fetal boom ko mu daanu dee ne moom loolu loon xaar donc kon kaso bi c'est un moindre mal pour lui donc idéologie boobu ak euh, dëgërlaay boobu nga xam ne imam ndaw moom la amoon wax dëgg yàlla dama jàpp ne képp ku xeexal l'islam mhm. euh, ci martaw boobu la war a taxaw mawqif boobu la war a taxaw pour mën a mener à bien sa mission donc yàlla na yàlla yërëm ko yàlla may ko ci àjjana yu gën a kawe yi ñu am nañu yaakaar lool ci moom mhm. te gëm nañ ni turam ak liggéeyam du fay ilaa yawmi diin mhm. ndax imam ndaw daf fi bàyyi ay junni junni imam ndaw yi xam Et essaimer dans le territoire et fi leeg nous yu gàtt ñu gis ay discours révolutionnaire parce que man damay wax ni Imam Daw euh, avance mu amone sur le capitalisme sur le nouvel ordre mondial sur euh, cette prédation là par les autorités coloniales mm. le néocolonialisme avec la France maanaam li nga xamé ne daf ko dénoncer Li aujourd'hui imam Daw Andina, na am ay imam yoo aujourd'hui qui sont qui commencent à être intéressés mhm. par la géopolitique mhm. te avant imam Daw, wax dëgg yàlla xamuñu ko woon si imam yi ils étaient vraiment enfermés dans le Coran la sunna Yalla nee na yonent Bida, safara ajjana fii la gaa mhm. donc aujourd'hui di nga gis ay imam yu imam Babacar Sylla euh, bu nekk fële ca Malika di y ay imam sëñ Mor Mbaye bu nekk fee ci Touba gis ñoom docteur euh, Ibrahim Khalil Lo al Ibn Imam ñii Euh, vraiment soo leen xoolee ñuy développer jël ay thèmes di ci dox nga xam ni macha allah ñii imam Ndaw de près ou de loin influence na leen. ndax euh, loolu mooy une influence positive mooy di xool kenn di xool sujet yu muy abordé di xool combat parce que imam Ndaw homme de combat la. Mhm. yemul ci minbaram ak ci mhm. jàqam. Mhm. saa yu lislaam soxlaa dafa doon wàcc ci terrain bi euh, ñun bokk nañu ay manifestations yu bëri yi nga xam ne ay jotaay yi nga xam ne jotaay waxtaan ay conférence yi nga xam ne yemul woon ci jàqam kese. donc imam Ndaw wax dëgg yàlla euh, ba ñu si jàppee man dama gëm sax ni mooy jàpp ma gën a neex si jàpp dellu si loolu. parce que mhm. c'est comme si le destin mhm. euh, vous alliez deux fois ak Abdou Karim Gueye effectivement euh, d'abord nga combat bi mu doon mené, mhm. inspiré na leen waaye inspiré na ñu bari ci loolu la défense de l'imam Ndaw keroog bu mu génnee àddina def ci commentaire taxoon na ñu une première fois si si une deuxième fois encore euh, keroog bi ñuy xalaat ni peut dañuy bi nga waxé ni da nga bëgg bok ci présidentielle mhm. ah, ah, la veille wala bok quelques jours avant ñu mhm. xëyaat tée la mais bi mhm. yoon téewuñu la yow rek yobalé Abdoul Karim Gueye ken xamul nak Abdoul Karim Gueye lan la wax wala lan la def ci digënté bi il n'a rien fait Abdou Abdoul Karim Gueye damay wax ni sama dégâts collatéral la Abdoul Karim Gueye man ma tax ñu ko Abdoul Karim Gueye euh, peut-être avant Imam Daw jàppoon nañ ma ci dossier wu Djibril War euh, enfermé ma ci euh, pour diffamation chaque fois me rappelle, ni je suis le premier sénégalais bu ñu pour diffamation tëj ko diffamation mosuñu si yóbbu Kasso, mhm. euh, mandat de dépôt ay nit diffamation procès flagrant délit la bi nga xam ne maximum sursis les dóor entre un mois ba six mois sursis euh, at least wala bokk boobu maximum ñu tegal la ci benn amende ci wàllu xaalis mhm. mais tey yóbbu kaso moom mosul am mhm. euh, bañ ma ko defee dafa am kenn ku nekkoon ci biti teg ay combat yu métti. Euh, pour ma libération kooku il s'appelle Abdou Karim Gueye. maanaam taxawaay bu mu am ci sama emprisonnement boobu. mbindeef mosu ko am ci réew mi déjà dafa tax ñu créer un collectif. chaque fois on la ma Guy Marius Sagna di tooñee ne yow Sénégal histoire du Sénégal a une première personne bu ñu créé le collectif pour sa libération y a eu des collectifs pour la libération de ay nit yu bëri yoo xam ne kenn limu mais collectif pour la libération de Cheikh Omar Diagne Koulikot. Mhm. ça a été ah créé. Mhm. et ñoom Abdou Karim Gueye moo créé On am ci taxawaay bu extraordinaire ay marche. yi nga xam ne ay marches intempestives. Mhm. devant la prison euh, marche devant ci ci ci dañuy dem palais maanaam dafa demoon ba dafa inquiéter le pouvoir ba gars yi obligés en tant que patate chaude gars yi ma bàyyi. collectif boobu ñu wax Colicot moom mujjee migré ba mujj nekk Colidep. Mm. le collectif pour la libération du détenu politique.